Tiwaawan ba faaw nekk kuréel goo xamante ni bi ni li ko tax a jóg mooy suqali Tiwaawan ci njiitu ki nga xamante ni mooy Mamadou jàng si Mbengue jagleel na lu toll ak junni ak juróomi téeméer suukaru koor askan ba nga xamante ni ñooy yewwoo ci gox boobu lee tey jii dèjà dinañ def lu mat mille kiitu ndogu bokkul ak ay ñam yu ñuy togg tamit ciblé ay daara yóbbu ko fa mais si yoone mbedd Tiwaawan tamit ku sa nekk nga am ci keroog dañ ni nañ xaar ba leetul xadr man nañu def amee ñu bii sax moom moomee taxaw temb ngir soqalu Tiwaawan moo waral sax mu taxawal bile association gannaaw ba mu ci mairie dañ doon def rek lu mairie bi mën waaye tey nag tey dañuy def lu ëpp lañ daan def ba nekkee maire si lu ñu yàlla war sëgale. commission boo bëgg a inscrire nga inscrire ci. duggul liggéey tëjaluñ ko kenn wala ñii ñooy chef ñi ñii ñooy nit suuf déedéet ñun ñëpp ñoo ci yam dès lors am nga carte de membre bokk nga ko amul carte de membre nag bokkuloo bii moom engagement bi daa am lu koy fësal. ba mu ca jugee ndaw ya nga xamante ni bi ni jokk nañ ci boobule association. tikk ya nga xamante ni bi ni diggoon na leen ko ngir lu ñoŋal seen liggéey ñoom ñëpp jot nañ seeni jumtuwaay. matériel yi ñu ngi waaye formation daf ñu amal du ñu révélé nag ñan la am na ñu ne ci jataay bi mais TBF may na juróomi étudiant bourse di leen fayal seen njàng ci at mi yëpp comme ni ma waxoon nag tépp tépp a gën yuréet bu kenn yàkkam mais fa ñu jëm xam nañ ko te insha allahu taala dinañ leen jàppale yaakaar naa ne sax yëf yi dina yaatu yaatu boo xam ni ah ñi nga xam ni te nii ñëw nañu te duñu am defe naa ni dina doon lu lu néew Tivaouane ba faaw nekk kuréel goo xamante ni bi nii Tivaouane rek moo ko ñor fexe ba lépp loo xamante ni bi nii am na ci yeneen gox yi am na ci réewu taax yi mu am foofu ca Tivaouane ki nga xamante ni bi nii mooy Mamadou Diagne Sy Mbengue loolu lépp mi ngi ciy sant ki nga xamante ni mooy njiiti réew mi di Macky Sall ndax moom moo ko dooleel ba tey jii li mu yéene Tivaouane mu mën koo def